dama bëre bërewaat man su ma bëree ba pare ba daan. Hmm. normalement mbëri dañ ma war a laaj. waaw mais kenn laaju ma. yow nag doo laaj. non man kenn laaju ma boo daanee Bécaye yow lañu war a laaj. waaw waaw ne jox ma diw. voilà mais kenn laaju ma. lu tax. jeu technique yàlla dogal TikTok bi boole ñu. waaw TikTok moo leen boole. TikTok moo ñu boole bu dem palmarès doo bëri. mais du làmb TikTok boole ñu ma wàccaat bëre ko ñëpp ne ma waroo ko woon jël. combat risque la booy bi dafa mën a bëri la ma ne ko bis bu ma ne ko nuus dama koy ñuus ñibbi noos. Mm-hmm. Mm-hmm. te noonu la demee. Mm-hmm. yàlla may ñu si ndam. mais keroog tamit dama remarqué ne yow bi sori ci dóor bi nga ko noonu sori. ah non damay bañ ku ma yeb. bu ma neexoon jàpp ko daan ko mais damay bañ ku ma yeb xam nga kooku te te te loo ci xamul dóor yi. dama cee dolli ndox. Ah waaw ndax damaa xam ne mbëru askan wi la. te dañoo bokk ay supporters. Mhm. damay lire commentaire ñëpp naa ma yàlla ngeen niil. ndax yéen ñaar da ngeen di bégal sénégalais affaire yooyu. moo tax li ma ko dóor amul solo noonu. damaa dégg dama lire kuy seeru. waaw damaa gis ay commentaire ah nga wax noonu nga wax bu sama maam kii dina la am loo ci teg. waaw ah, am ko ne noonu na bàyyi saaga yi. mais ñi si des ñëpp ni saagawul loolu bëgg la moo tax mais xam na ni saaga loolu du saaga am na saaga yoo xam ne loolu du saaga mhm. ay wax yoo xam ne dafa raar ñun moom la ñu indiwaat mhm. wax yooyu du saaga ndax ñun dañoo yar yar bu baax ñun dofuñu bay saaga wala ñuy fooye loo xam ne mhm. waruñu ko fooye surtout alxuraan bi ba ma daanee noonu sama xol sedd ma sant yàlla tari alxuraan tari tari sama aaya loolu la yàlla def aay boobu neex ma ma tari ko aadiyaati nga tari waaw waaw aay boobu boo xoolee sax gars yi gën nañ ko tari <laughs> gaayan gaayan <laughs> man sax du damay julli suñ jumaa koñ bi waaw mais jumaa bi gën na mais taay moom lay naan li di ko di ko mu nekk aay boo xam ne ñëwaat na mayaat nga ko bës waaw alburé <laughs> alburé gi noonu mais bi nga taanee léegi fii ñu toll nii nag ah, mais lan moo indi bës bi nag ñëpp bëgg alburé yi ñëpp léegi bu dee xool mbër yi ëpp ci euh, euh, succès ci dëkk bi Alboury ci la bokk te Alboury ñaata combat nga bëre. man huit. ñaata victoire. huit ah bon. waaw amagoo défaite. yàlla defagul loolu. defagul loolu yàlla defagul loolu. Mm-hmm. waaw noonu la yàlla defagul loolu. yàlla la te ñu ngi ñaanal tamit vraiment yàlla protéger la. Mm-hmm. yow say daan dinay neex. Mm. mais lan moo tax amateurs yi bëgg la seetu amul. amateur amul supporteru Palla ah. Gaye amul bu Eumeu Sène amul bu mu ñoom mbëri sax. mbëri sax lañ maa bëgg. waaw ndax làmb dafa am ay dafa am yoon. mbër waroo yam ci bëre di daan. Mm-hmm. ndax fii loo fi bëre à ñoom maa nga bëri woon nañ ko fi. Mm-hmm. loo fi njuug gars yi ñoom Yékini njuugoon nañ ko fi. Mm-hmm. mais toujours Sénégal dafa bëri stress. il faut nga def plus. di wax tamit nit ñi di ree ndax man su ma su ma su ma bëree day neex su ma waxee day neex su ma feetee day neex. Mhm. ndax ay élément temps lañu nee naa la man maay xale rimbili rimbili. rimbili. rimbili rimbili. ah d'accord. waaw pa tàcc bin bin pa tàll pax pax xale bi dégg temps bi kaay te musul wàcc temps. Mhm. tigi di temps rubinda temps taj loolu yëpp ay xeetu temps la loolu la yàlla def. Mhm. voilà ñu ngi utiliser suñu loolu ñun suñu kër lépp lu dul temps ñu ne ko pan. <laughs> waa léegi après sa dernier combat bi pour mu amul benn promoteur bu wax ak yow ci combat. doon nañ ma fi proposé ay Adama Diouf. Ah, non papa di baax la wax dëgg yàlla moom mais nee naa ko man nañ ma jox mbër. mais mbër la waaye. mbër la. waaye la mais Adama Diouf amul trois trois victoires. ah bokkuñu suñu palmarès si bokkuñu. Mhm. peut-être euh, mi ngi prouvé ci ligue simple bi. mais suñu palmarès yi bokkul. loolu da ngay bañ ñu am fu la catégoriser. voilà xam nga Sénégal dañu gaaw ci ay comédien la comédien. mbër ñu jël dugal bëgg la dugal ci ay loowu ñoom liiru jaan. ñu taman dafa teel taman dafa teel pour ma def crime. <laughs> pour dafa teel. pour ma crime ma def ci crime man. Ah. bu ma fee ñooñu koo ci dóor yàlla mun na dogal mu sedd sa loxo te man te saa damaa ragal police. bañ naa ko ba sama carte d'identité amee ma ko police mairie laa ko amee. ah oui. mais ku ci mel ni sëñ Modou Gaynde ah borom doomi Samba Roxo Joobeen bi si sama veille combat bi. Mhm. sama téléphone daa réer woon. Mhm. xam naa booy supporter yi ñoo ko këram. supporter yi rek boo sonn. parce que la. yow bu dee ma. Ah. yor benn. benn benn téléphone simple. waaw téléphone simple bi. ok bi <laughs> bu dul am whatsapp yooyu. ok bi da doon bañ. ok bi dafa dëgër su suñ ma woowee bu may décoller suñu waa kër ñëpp a siy jàpp <laughs> gisoo damaa bës bës ba gisoo sama baaraam bi ni mu amee yaram. yaa ngi ko mu woo ma may ma iPhone X X masque X masque. téléphone bi seer na dégg naa. daay <laughs> maa ngi whatsapp. Ah. di vocal. di vocal waaw. su ah. mel ni tamit Cheikh ah. Bamba général. kooku sama papa la. këram laay nekk di añ yu neex bi waay daf may ñaanal ba pare di ma ñaagal ku ci mel ni Kina Diop. Mhm. keroog këram damaa añ ba seen safoor bool bi. <laughs> te sama dërëm demu si. mais est attention moom it baax a baax di ko gërëm. yow yaa ngi Amet Thiam tamit day jàpp suñu kii ak waa caabi ji. Ah. waaw ak waa dañuy jàpp sumay mbir bu baax a ah. baax a baax. Ah. ñoom ay promoteur lañu day di jaay ay kër nee nañ loo am am kër fii lañ ma may terrain. ñu ne dinañ la may terrain. may nañ ko Thiès côté Thiès. côté Thiès bi noonu. mais fii mais defaguma ci dara bi viddi la noonu toolu dànk ko bëgg a def ba yàlla ñëw ki mbiram ma tabax. macha allah ba na yàlla indi ay mbiram. vraiment ñun dañ lay ñaan ah. kum soxla waa léegi nag ci koo soxla parce que Adama Diouf soxla woo ko koo soxla xam nga li ma ci jaaxal mbër yi bëri li traditionnel bu ñu ñëwee fi koo soxla mu ne diw ñoom amuñu ci benn problème liggéeyuñ la defuñu dara mais dan dantaan diw nan ma jox diw ak diw ak diw mais yow ko sax euh, man samay adversaire bari nañu man Fass am nga fa adversaire Fass am naa fa ay adversaire comme doon nañ ma doxal combat ma ak Baara Ndiaye mais ci moom la yàqu général bu Fass bëgg nga kooku tamit maa moom làmbul mhm. bëri na ay adversaire yu ma fa Pape Ndoye Pape Ndoye ñoo ñëpp samay adversaire say adversaire voilà boo demee boo demee ci ñoom Balla Gaye Colifay. ah Colifay bële Thiaroye Colifay de kooku tamit sama adversaire maa ngi moom làmb ju neex la. waaw làmb la c'est vrai ay ay ay ay ay mbaytin. mbaytin ñoom maa ñoom ay combat la. Mhm. xam nga bëri na. seen fekk nag làmb ji boo seetloo koo fi laaj mu ne. liggéey nga ma. da da lay xëy dagg loolu esati ko. di wër bés. Mhm. affaire bi du foofu ñu ñun ay mbër la ñu ñooy mayante xaalis ndax ba chaque jour dañ man li may fare sama yaram chaque jour dafa bari. Mhm. boo toogee un an mooy ngay mooy par exemple ngay jëndee fukk di jaayee juróom di liggéey di perte. Mhm. te ñun làmb ji xaalis nañ ciy wut. wut ñu ci leneen. ku ci am xaalis da ngay bàyyi. boo xoolee mbër yu bëri dem nañ ci États-Unis ah am beneen liggéey bu leen gën a làmb. waaw ñu toog ñu bàyyi kon ça veut ñooñu xaalis la ñu wut. kon ñun ñi fi nekk nag yàlla dogal na demaguñu fenn nañuy bëre suñu biir. chaque dimanche di am xaalis di am dara. di am dara loolu loolu loolu loolu lu ci lu ci am solo la. waaw mais tamit euh, di sant lii ka. kuy lii moom day jàpp samay sant. mais doo wax ni yow lii euh, euh, kenn. non lii damaa ibbi sama bataan mu daanu ma ma ma sol. <laughs> waaw li kenn santeelu ma ko jox fara moo ma ko sant <laughs> li kenn santeelu ma ko. Ah. waaw même ay ay xaarim faal. Ah. ay njeer borom xidma business. ñoom ah. dañuy jàpp samay samay sol bu baax a baax. xam nga man damaa ñaaw neexuma sant mais.